alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala majmaci suunihi wa xaqiqati kunihi sirrihi sayidina wa mawlana muhammadin man ruuxuhu qiblatu larwaax wa jismuhu kacbatu lasbaax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 yàlla man na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def dëppale ñu ak ngërmandéem dëppale ñu ak yërmandéem ci barkeeb aayaat yi ñu fas yéene firi mu nekk suñ bopp darsu sama borom bu tedd bu màgg bu sell bi di ca wax ne yaa ayuha alladina amanu sanibu kathiran min alxanni inna baad zanni ismun wala tajassasu wala yaxtab baadukum baadan a yuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuhu wattaqullaha inna allaha tawaabu rahim aaya jooju mooy suñu bopp darsu yaa ngi koy fekk ca suratul xujraat ca aaya fukki aaya ak ñaar sama borom bëgg rekk doomu aadama mérito nekk xalifa yàlla ci kaw suuf te am na jikko yoo xam ne ku ko jikkowoo mérito nekk xalifa yàlla ci kaw suuf jikko yooya bokkoon na ci xeebaate ngir sa juddu ngir sa askan ngir sa alal ngir sa ndomba tànk ngir sa xam-xam waaye jikko yooya bokk na ca tooñ ab tooñkat mérite hut mu nekk di xalifaab yàlla ci kaw suuf jikko yooya bokk na ci fépptéerlu bañ a topp ndigalal borom bi ci njàngaleem sayiduna muhammad mu leer mi le sallallahu alayhi wa waaye jikko yooya bokk na ci di jëw nit ñi koo gis muy jëw dafa manki jikko yooye bokk na ci ñaaw njort moom la aaya ji di jàngale na yéen ñi gëm yàlla gëm ga wér ngeen jël alxuraan def ko mel muy seen téere kaabatal musharrafa di seen qibla sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa di seen kilifa na ngeen teeg lu bëree bëree bëri ci njort lu bon ndax lenn ci njortu yi bàkkaar rekk lay bijjal boromam waxul léppi njortu de ndax léppi njortu mënta xaraam waaye léppi njortu mënta dagan njortu lu rafet dara nekkut ci waaye njortu lu ñaaw moom la yàlla bañ moo tax waxut inna kulla zanni déedéet dafa ne inna ba'da zanni lu ko waral njort goo xam ne dafa lay juralal ñaw njortu ñaw njortu ñaw njortu lislaam waxu ca dara na waaye lislaam li mu bañ mooy ñaaw njort ndax boo ko seetee mbooleem xeeti mbon yi nekk ci pénc mi tey lépp fondation bi muy tabaxu mooy ñaaw njort wali anna su wali anna su ak zanni asaasun tugna alayhi alqabaixu kulluha nag ndax ci ñaaw njortu daal mooy fondation bi ñuy tabaxee xeeti mbon yëpp ñaaw njortu mooy yóbboo nga topp ko baray bakkan bu la defut dara waxut dara ci ñaaw njortu ngay toppee ba tooñ ku la tooñut ci ñaaw njortu ci lay tabaxoo geer takk ci diggante famille mbaa ci diggante askan ñaaw njortu mën naa dem ba tasab sëy ci diggante jëkkër ak jabar ñaaw njortu mën naa dem ba yàq diggante baay ak doom ñaaw njortu mën naa dem ba yàq diggante xarit ak xaritam ñaaw njortu mën naa dem ba ñaari mbokk kenn ku ci nekk wax sa morom ne ko baax na te fekk seen ñaari baax na yi benn baaxut ci moo tax yàlla bañ lool borom njortu lu ñaaw njortu lu bon baaxut ku la gën a ñaaw njortu gën laa bëri bàkkaar ku la gën a ñaaw njortu gën laa ñàkk dund dund bu dal ndax ñaar ñuy déenti mu fone ci moom lañ ne ñaar ñu mu gis ñuy wér ñu fone ci moom la ñuy wax lu mu gis fone ci moom lañ ko jubale moo tax bu la yàlla nattooyee njort njort lu ñaaw rek yow sa àdduna moom nëx na ba pare sa dund ak àdduna gi yàqu na ba pare yow ci sa bopp daal même boo deewagut boo yeboo tàggee sa bopp xam ne yow sa dund gi ñàkk dund sax moo ko gën yal na yàlla musal mu ci ñaaw njort mu ne tamit wala tajassasu bu leen di rajonte kenn ku ci nekk di jéem a xam li moromam nekkee foo toll naan foog naa yaakaar naa boo demee te fekk kenn demut ab jullit war ta jikkooy di jéem a raju moromam jullitam ndax loolu tamit bu la ko yàlla dundee bindee rek coono dikkal na la foo toll lu nit ñi nekkee danga nga koo bëgg a xam nekk koo xam ne da ngaa bëgg a nekk ku bañ a bañ kumpa loolu baaxut ñetteel bi mu daanee ko ne waaye waaye nag walla yaxtab baadukum baadan kenn ci yéen lenn ci yéen bu mu jëw moroomam ñu ne ko yàlla nu nal gis nga ñaar yee yëpp wax na ko waaye gis nga jëw a gën a ñaaw ci ñett yi ñu tere yëpp moo tax mu daanee aaya jene ndax kenn ci yéen dana bëgg lekk yàpp moromam sa moromam nit di dund nga jël yàpp wa di ko lekk wala sa moromam nit dee maanaam nga tiim ko lekk yàpp wa loolu xam nga ne kenn bëggut ko ñu ne ko yàlla loolu dégg ñun bëgguñu ko mu ne kon bàyyi leen jëw koo jëw yaa nga mel ni ku tiim yàpp wa di ko lekk moo tax mu ne wala yaxtab baadukum baadan ayuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuuhu wattaqullaha inna allaha tawaabu rahim suratu hujuraat aaya douze foofu nga koy fekk kon nañu bàyyi ñaaw njortu nañu bàyyi raju wante nañu bàyyi jëwante ñetti aaya yi wala ñetti tere yi dafa mel ni ci suñ pénc mi la wàcc Sénégal boo dajeeg bu ko yàlla dimbaliwut moo gën a ñaaw njort ca moroomam ca mbokkam ma ca xaritam ba ca wëllëreem ba Sénégal boo dajeeg bu ko yàlla dimbaliwut ma ngay jéem a raju la moromam nekkee waa ji waaw nu mu def ba am oto nu mu def ba jënd pàkk nu def ba tabax nu mu def bañ embauché ko place sàngam muy liggéey waaw waaw moom nu mu def ba diw takk ko num def ba am ak moom doom num def num def num def ca ngay nekk di ko toppatoo ba yow doo def dara far nga far torox bari na koy jonkanu di ko rajo ngir mag bëgg mu torox nga nekk fa jonkan fa ba far toroxtaane fekk la fa ak bari mu nekkoon nag bu kenn ci yéen walla bu lenn ci yéen di jëw moromam ku ko def mu ngi mel ni sa moromam nit koo bokk ak ndey ak baay mbaa ngeen bokk ndey mbaa ngeen bokk baay mbaa seen i maam ya seen bàyye bokk wala ngeen bokk diine mu dee nga tiim ko di ko lekk te xam nga loolu ku ne bakkan bu ne sib na ko aayaat yi nag boo gisee suñu borom wàccee ko demal ca tafsirul qurtubiyu mu ne mi ngiy wàcc ci ñaari góor ci saxaabaay sayduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam qurtubiyu suturaal na leen ba tuddul seen tur mu ne ñoom ñaar dañoo jëwoon seen àndandoor lu ko waral yonentu dafa baaxoo woon bu mosaana tukki ànd ak ay saxaabaam day tànn ñi man dara te xamuñ dara mu boole léeg ñi xam dara te mënuñ dara ne yéen ñii yàlla jox leen kartan te amu leen dara dem leen ngeen dimbale ñii nga xam ne xam nañ dara waaye amatuñ kartan loolu la di dañu ngeen associé nga jox ma sa doole ma jox la sama wërsëg mbaa nga jox ma sa wërsëg ma jox la sama doole mu jël ku ñuy tuddee Salmaan alfarisiyu boole kook ñaari góor ci saxaaba yi Salmaan am na doole waaye amul dara mu boole kook ñaar ñoo xam ne am nañ wërsëg man koo joxe waaye mënuñ dara yàlla dogal ñoom ñaar Salman di leen liggéeyal te ay patron lañ Salman nag dem ca kër ga ni mu tëddee rek ndeke nelaw na ba fàttee parapareel ñaar ñii yonantu bi boole kook mu war leen a toggal njam moom mu nelaw ba toggut añ bi kon góor yaa gën togg yéen moodu moodu yi tey nekk Amérique ñi nekk Italie ñi nekk Espagne ñi nekk ci yeneeni réew bari na ñu fa nekk ñoo xam ne buñ toggee añ seen soxna yi toggu añ rek wallaahi nga xeeb togg soxna ya ndax ñoom ñoo leen di dàq togg ca añ ba ca reer ba léeg-léeg nga gis ñi ayalante mel ni kuy sëy loolu la yàlla dogal kon boole laa góor mu lay toggal lu fi yàgg la yonentu bee ko njëkk a def ci diine ji jël salmaan am na doole xereñ na mën naa duggi marché mën naa togg mu boole kook ñaar ñu mën a joxe dépense waaye mënuñoo togg salmaan yàlla natt ko mu sonn ñëw tëdd rek nelaw fàttee toggal añ ñaar ña ko yonent bi boole woon ak léegi nag añ bi jot na togguñ ko te ñoom xiif nañ yónni Salmaan ne ko demal ca Usaama ibnu Zaydin mi nga xam ne mooy bëkk néegu yonantu bi bokk na ci bëkk néegam ya bu fekkee dese na fa ñam mu dimbale ñu ñu ne ko izhab ila ila Usaama ibni Zaydin fa qul lahu in kaana indaka fadlu min taamin fa yu'tika demal ci usaamatu bnu saydin ne ko su fekkee desal na fa añ mu dimbale ñu usaamatu moo doon bëkk néegu yonantu bi sallallahu alayhi wa nit ku ñuul la suñ mbokkam nit ku ñuul la moo tax yonantu bi nit ñi ñu ñaa ko gënoon a jege usaamatoo ngi nii di bëkk néegam di nit ku ñuul bilaal la ngi nii di noddu katam di nit ku ñuul di ko liqaamal bëkk néeg la woon moom tamit en même temps salmaan dem na ca usaamatu usaamatu ne ko maa indi shay'un yooyu fi dara benn desetu njam nisu fi xam nga daara moom kuy xaar mu yàkkal la xiif bi ray la ndax mu gën a aajowoo yàq aa ah, bilaal dellu ca ñoom ñaar ne ko dem naa ci usaamatu mais nee na dara nisu fa ñi jëw usaamatu ñoom ñaar ne ah qad kaana indahu walakin baxila maanaam daal usaamatu am na lu nekk ca moom mais dafa nay rek rajulun baxiil ku nay la ah ñu yónni xat salmaan tudd ko ay saaba mel ni ñu ne ko demal ci sayduna omar bu deselee ñam dimbali ñu demal ci sayduna aboubacar demal ci sayduna ousmane demal ci aliyu mu dem foofa yëpp ñoo ngi ne ko dara desut fi Salman ñëw nag ne leen da ngeen ma yónni woon ñëpp rappel naa kenn par kenn waaye amul ku dese dara ñam bi ah, ah ñam yàgg naa jafe de ñoom nag ñu jàll bi ko tamit jëwaat Salman ne ah waaye Salman mi de dafa humu ku ko yónni woon ci géej sax du andi ndox ku ko yónni woon ci géej yaakaar naa na bu demee ba jub géej ga sax géej ga niis ndeketoo ñaari jëw yi yóbboo na leen seen gémmañ yaa nga niin ñoom ñaar ñu ñëw ci yonantu bi rek yonantu bi na gis naa niinutu yàpp ci seen ñaar ci seen ñaari gémmañ yéen ñaar ñii ñoom ñaar ñëpp ne ko ñun bisab tay bi lépp lekkuñ yàpp kenn xamul kañ lañ gëj a lekk yàpp bu doon léegi nga ne ko daal ci tabaski ba léegi lekkuñ yàpp ndax yàpp yombutoon mu ni leen a ah, kay yéen a ngi nii dangeen a lekk yàpp salmaan wi lekk yàpp usaamatu wi ndax yéen a ngi nii wax ne salmaan ku ko yónni woon ci géej du andi ndox yéen a ngi nii ne ah, usaamatu dafa nay rek waaye daraa nga fa aa ah, kon nag dem leen ngeen gàllaxndiku ji te ngeen dem raxas seen gémmañ yi xetat mbedd mi ngi ciy xeeñ kon dama ne bu yonent bi waxee lii ay saxaabaam waaye waaye ci ñaari kàddu yi ñuy wax te muy baat yu xoyof a xoyof baat bu xoyof ni sama waa ji de ku ko yónni woon géej gi indi ndox lu xoyof la ci suñ pénc mi waaye tamit diw dama laa yónni moom joxul la manoon na maa dimbale dafa bañ rek baat bu xoyof la ci suñ pénc mi waaye ndeketoo ñaari baat la yu diis ka yàlla ñaari baat la yoo xam ne dana dugal la yonent bi ne woon léeg-léeg kenn ci yéen dana wax baat jàpp ne la xoyof la ndekk baat boobu mën na koo nuural ci safara juróom-ñaar fukki lolli fekk na muy baat boo xam ne rek taxsibuunahu hayyinan fekk wa huwa inda allaahi azimun ci alquran nam ko wax ca suratu nuur moo tax kon ci ñoom ñaar ci la aaya ji ndax ñoom ñaaw nañ njort ci seen mbokkam jullit muy salmaan ñaaw nañ njort ci tabaarakallaahu usaamatu jàllar bi nañ ñoom ñaar tamit jëw ko kon nag euh, euh, ñetti yi alquran di tere yépp ci aaya ji def nañ ko raju nañ jëw nañ ñaaw nañ njort moo tax yàlla boole ñett yépp ne tere ko ne yaay wala si na amanu seni bu kafiran min alxanni inna ba'da zanni ismun muy benn wala tajassasu muy ñaar wala yaxtab ba'dukum ba'dan muy ñett waaye ba mu tuddee ñett yi nag jëw la gën a ñaawlu moo tax mu ne ay yuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuuhu moo gën a garaaw ñaar yële téeméeri junne yoon moo tax mu daanee aaya ja loola te fekk daaneewut ko ca ñaar yam njëkkoon a tudd kon nag ab jullit lañ cay jàngee warta ñaaw njortu ci mbokkam ab jullit warul ñaaw njortu ci mbokkam jullitam warta ñaaw njortu ci mbokkam meenam mbaa gañoom donte bokkuñ diina ji warta ñaaw njortu ci benn nit bu mu bokk ak mi te ñu bokk nekk fii ci péncam yàlla mi te yàlla sant jullit bi mu war a jagal pénc mi te ñaaw njortu ak jëw ak raju dafa nekk ñett jikko yoo xam ne dafa gaaw ci mën a yàq ci kon ab jullit daal su fekkee conscience li ngi dund warul koo taqalee ñaaw njortu déedéet ñaaw njortu baaxut ñaaw njortu la lislaam bëgg mais baxut ñaaw bëggul ñaaw njortu na bàyyi lépp luy ak def defle lu ñaaw génne ko ci xolam ba mu jeex takk remplacé ko njortu lu rafet moo tax Omar ibnu Xataab dafa daan wax ne yéen saxaaba yi wax yu jeex na képp ku fi jëfati lu jëfawut la ca feeñ rek laa koy xatte bu baaxee ma hóoluloo ko sama bopp jegeel ko waaye su ñaawee tamit ma atte ko ca loola bu njëkk nag lu ngeen di fi def lu mos a ñaaw wax yooyu wàcc rek dëgëral loola wax yu nag jeex na wa inna al waxya qad inqataa wa innama naaxuzukum al aana bima zahara lana min amalikum fa man zahara lana xayran amannaahu wa qarrabnaahu ah wa laysa lana min sariratihi shay'un allahu yuxaasibuhu fi sariratihi wa man azhara lana suu'an lam namanhu wa lam nusaddiqhu ah wa in qaala inna faridatahu xasanatun sama yoon nekku ci li feeñ rek laa mën a xatte kon ab jullit nim bëgg ñu jëflanteeg moom nu mel noona la war a jëflante ak mbokkam nitam ni nga bëgg ñu yore leela buñ la dénkee njaboot ak jàmbur na ko yore noona loolu boo ko defee rek am jàmm njortu lu ñaaw baaxut yonent bi mas naa toog benn waay bu ñu tuddee fuddaalatu daxee koo Makka ne dafay ñëw rey si yonent bi kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa ndax moom yàlla yëral na ko lu nëbbu ak lu nëbboo nëbbu waxuma la lu feeñ aa fuddaalatu ñëw rek yonent bi laaj ko ne ko lan lan la sa bakk bakkan bi wax ak yow maasa kunta tuhaddisu bihi nafsaka lay wax ak sa bakkan bi mu ne ko laa shay'a kuntu azkuru laa rek mu ne ko man damay tudd yàlla rek wallahi sama bakkan bi waxtaanut ak man dara lu ñaaw yonent bi ree ne ko fu daalatu jéggalul yàlla jël dënnam ba jël loxoom bu tedd bu sell ba teg ko ca dënnam ba moom yonent bi moo jël loxoom ba teg ko ci dënn fu daalatu ndaw ko am sens fu daalatu ne yonent bi daal avant muy yëkkati loxoom bi sama dënn bi mujj na nekk ku ma gën a sopp ci mbindeefi yàlla yi te avant mu ko ci teg moom laa gënoon a bañ ba hittewoo woon ngir ko waaye wallahi ma rafaa yadahu an sadri hatta ma min xalqillah shay'un ahabu ilaya minhu nga xam ne kon kenn du sayduna muhammad muhammad di kama bu foor boo xam ne bu la koy roof rek nga yëg tabaarakallaahu efficacité gi nekk ca garab ga kon yàlla xamaloon na ko la lemu woon ci dëddi mu naafiquuna yi demal nga laaj ko Abdullahi ibnu Ubay ibnu Salul ba mu waxee wax ju bon ja jëmale ko ci yonantu bi yàlla weer ko ci alquran te mooy lim waxoon ne la in rajaanaa ila almadinati la yuxrijanna aazu minha azalla bu ñu delloo madinatu munawara ki gën a tedd dana génne ki gën a torox namm ci ne moom mooy ki gën a tedd namm ci ne yonantu bu tedd mu baax mii mooy ki gën a torox ndeke xalaat bu bon boobu wax ju ñaaw jooju yàlla yónnee na message bi yonantu bi ca nam gën a gaawee moo ëppoon ñëpp message Abdulaay ibnu Ubay ibnu Salul taxaw rek yonantu bi ne ko waay waaw yow dégg naa ne tabaarakallaahu yaa wax wax ju bon ji mu waat ne ko waxuma ko doom ja nag ku baaxoon la muy Abdullah ibnu Ubay mook baayam ñoo bokk tur waaye boo ne ibnu Salul rek muy baay ja boo ne Abdullah ibnu Ubay nag taxeggoo ca ibnu Salul ja muy doom ji doom ji ku baax la woon sahabi yu bu tedd la bi wax ji siiwee ci madinatu munawara te ñëpp xam ne baayam a ko wax rek la ñëw ci yonantu bi ne ko jox ma ndigal ma rey sama baay waaye bëgguma nga koy rayloo kenn bu ëllëgee kooka di daagu ci kaw suuf sama bët yi tege ci jëmmam ja ma xool ne kii rayoon sama baay ma di ko rey te fekk mu nekk ab jullit may dem safara ndax ku rey jullit te yaa ko tey dem safara kon digal ma ma rey ko rek yonent bi ne ko déeréet wallaahi jéggal naa ko man mii daal du ma dañ di rafetal ak kàndoo fekk mi ngi fi fekk mi ngi fi rek du ma dañ di rafetal sama kàndoo ci moom te man ma kàndoo bu ñaaw sama diggante kenn donte kooka nekkul jullit donte kooka mooy ki ma gën a bañ tamit dafa ma lebal lim am man li ma am laa koy faye muy lu baax waaye xool saxaaba yi fi seen ngëm tolloon ko sa baay bañ yonantu bi ba di ko xas nga taxaw ne ko jox ma ndigal ma ray ko bala koo keneen ray sama bakkan di ma xebal ci moom may fayu te mu nekk ab loolu di ma yóbbu safara kon bàyyil ma ray ko yonent bi ne ko jéggal naa te jéggal naa ko dégaluma ko dara ñun daal bal nartafiqu bi wa nuxsinu soxbatahu maa baqiya maana kenn du Sayyiduna Muhammad loolu la ko tontu kon nag nañu bay ñaaw njortu baaxut ñaaw njortu nag yow mi may déglu dafa am màndarga xam na màndarga yoo xam ne kum nekk ci yow nga yëg ñàkk yëg ku ñaaw njortu nga ñeenti màndarga la bi ci njëkk ca ñeenti màndarga ya mooy sa xol bi soppeeku ci ni meloon ci sa mbokk mi ci cofeel ak ci ñëwenteeg yërmande saa yoo soppoo nit ki ba mu teree laa nelaw nga dem a dem ba ci kanam sa cofeel ga mel ni dañ koo débranché rek wallaay ñaaw njor njort lu ñaaw dox na sa digganteeg moom mën naa xam nit la wax ci moom lu néewut ba tax na na ko jàppee woon ak ni ko soppee woon dañ te boo toppee tànk yëpp kàcc rek la moo tax bi ci njëkk mooy an yataxayyara qalbuka amma kaana alayhi naxwa aqiika min alxubbi wal mawaddati war rahmati kooku mooy première mandarga muy tekki njortu lu ñaaw ci sa digganteek sa mbokk mi sa njortu saa ñaawee ci sa digganteek sa jabar la ko mënaloon dutu ko ko mënalati na nga ko jàppee woon dutu ko ko jàppeeti na nga ko soppee woon daan ko toppatoo dutu ko ko toppatooti waaye yow jabar ji bu sa njortu ñaawee ci sa jëkkër ji na ko doon toppatoohee ak niñ ko doon toppee ak ni ko soppee woon tamit dafay mujj dañ demeet yow ma delu ci sa mbokk mi ci sa xarit bi ci sa àndandoor bi kon première mandargaam ñaaw njortu mooy nga rikile ci li nga meloon ci moom daal wàññeeku na wala dem na ba jeex tàkk ñaareel ba mooy sa mbokk mi nga koy daw comme ni nit di dawee gaynde saa yoo demee ba nga xam ne bëggatoo dajeeg moom yow sax bëgg ko bëggoo koo gis boo ko gisee dafa mel dañ laa rayal fa taaw njort lu ñaaw dox na sa digganteeg moom loolu baaxut waaye ñetteel ba tamit ngay daw lépp luy ak relation lu la mën a jural ak dajeeg moom ak jokk ak relation ci sa digganteeg moom ci tafagal ko ci reccal ko sa xar-xaram rek yooyu yëpp yaa ngi koy daw fépp foo xam ne wër la dàññi ne su fa dajee dajeeg moom su ma fa demee dajeeg moom rek doo fa dem waaye ñeenteel ba nag moo gën a garaaw mooy bu ko nattu dalee rek nga bëgg ca bu ko safaan dalee lu neex tamit nga maanaam tabaarakallaahu jàq ca yow daal boo sañoon lu bon rek ngay dégg ci moom an tafraxa bi sayyiatihi wa taxsinu bi xasanatihi moom daal da ngay bëgg ci ay ñaaw ñaawam tey nekk ku jàq ci ak rafet rafetam moom daal boo sañoon lu bon rek ngay dégg ci moom saa yu la ne lu bon ci moom rek nga kontaan loolu bu la dalee feebar bu bon la nga yëg ñàkk yëg sa njortu ñaaw na ci sa digganteek sa mbokk mi ñeent ñii mooy ñeenti màndarga yoo xam ne kum nekk ci yow ci sa digganteek sa mbokk sa digganteeg sa soxna sa digganteek sa jëkkër sa digganteeg sa xarit rek ña ñaaw gane si na kenn mënu ki dara yonent bi dafa daan wax ne ñett dafa takkoog sama xeet wi ak na naqare teqaleeg ñoom xadis la bopp yi moo ko jëlee ci xarisatu xarisatu nu Nu'maan ne salaasun laazimaatun li ummati at-tayratu wal xasadu wa suu zanni mu ne ñett fa taqoog sama xeet wi ak a naqar ak a naqaree teqaleeg ñoom ñu ne ko ñett ya la mu ne mooy gaaflu ak ñaaw njortu ak xañaan wallaahi maa la ko wax su boobaa nag kaay ma wax la ñett yi bu la gaaree noo koy saafaraayee dafa ñuy wax bu ñu saa yu indee problème moom yonent bi rek bu problème comme taxawee mu maanaam problème ñëwal xeetam bi rek dana joxe solution. moo tax bu jàngalee lépp lu mën a joxe problème bu ca bàyyeekoo rek bala laa bàyyi jox la solution ba mun nag bu la yàlla nattoo nga nga xañaane sa mbokkam nit ku mën a doon jéggalul yàlla xam ne da ngaa feebar. ida xasatta fastaxfirillaha kon jàngoroy añaan li ko mën a saafara mooy istixfaar jéggalu yàlla waaw ñu ne ko ñaaw njortu nag mu ne boo ñaawee njortu ci sa mbokkam jullit mu mën a doon bul dëggal njortu la neel li ma wax nii xamut li ma foog ci moom xamut feet yaa ngi ñàkk a dëggal rek jàmm dana dox sa digganteeg moom moo tax mu ne wa idaa gananta falaa tuxaqiq mu des benn ba mu ne nag bu la gaaf lu dikkee waaye man safooru taxi laa waaye dañ maa wax ne su ma njëkkee jël kili client ab jigéen balaa ngoon jot ma dem garage yonent bi nee na boo ko bëggee dindi saafara jàngoro ju bon jooju xëy xëyal rek nga sëf client ab jigéen moom daal sa gaaf lu ga lay dawloo rek def ko boo ko defee rek génn ca gaaf lu moo tax mu ne wa isaata tayarta samdi kon xadis la boo xam ne bu wéera a wér wér la wax naa la ki ko solo waa mu bokk ci xadisi abi hurayra ya noomaan ci lañ ko jëlee moom mu jëlee ko ci abi hurayra su ko defee kon nag mu ne sama xeet wi yàllaa leen napp ñu takkoo ñetti jàngoro yi le mooy xañaan ak gaaflu ak ñaaw njort benn bu ci nekk nabi wax na la nuñ koy saafaraxee jàngoroy xañaan jéggalu yàllaa koy saafara jàngoroy ñaaw njort ñàkk koo dëggal moo koy saafara jàngoroy gaaflu weddi ko dem defi lala gaaf nga sant moo koy saafara su ko defee kon nag ñaaw njortoo ngoog moom la yàlla njëkk tere ci aaya ji ma wax la ko ñaareel ba nag mooy raju di def tajassus ci sa digganteeg sa mbokk yi sa digganteeg ñi bokk ak pénc mi foo toll yaa ngi leen di jonkanu di xaar xuuru gàcca wala niiru gàcca taw ci seen kaw nga nekk fa di jonkanu kuy yokk ba far toox te xam nga àdduna li ci gën a métti mooy xañaane wala nga soxore wala ngay jéem a raju kuy yokk mbaa luy yokk doo dañ ci fitna ba ba ngay dee booy bañ demal nga bañ kuy wàññeeku booy xañaane demal nga xañaane luy wàññeeku waaye bu la yàlla nattoo nga xañaane kuy kuy kuy dolleeku mbaa nga xañaane luy dolleeku ba ba ngay dee dootu teqali ko ko naqar ba ba ngay dee dem bàmmeel tabaarakallaahu dajee faak naqar bu gën a rëy te nga dem safara yal na yàlla musal mu ci moo tax kon nañuy rafet njortu ci suñ mbokkam jullit nañu bañ di rajo wante kenn ku ca nekk yaa ngi jéem a xam sa morom nu mu toogee ak lu ko tax a toog ngay jéem a gëstu loola dafa lay indil ak yàqu lu jara daw lu jara daw la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci xajatul widaa la jàngale woon na inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum xaraamun alaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada alaa hal balagtu qaaloo naam qaala allahuma ashhad yow yàlla seedeel ne man jotal naa buxaari yoog muslim yépp ñoo ndi hadis bi mu bokk ci xadiisu abi bakarata ya tajassus di jéem raju nit ki di jéem a xam nu mu nekkee loola dafa lay indil coono rekk bu dul jeexati dañ koy bàyyi xel ata ibnu mas'ud bi rajulin ibnu mas'ud dafa ñëwal génn góor ñu ne ko góor gi de sikkiñam baa ngi toq sàngara ibnu mas'ud ku ñor la mu ne yàlla tere nañu ñu raju suñ mbokkam jullit nañ rafet njort ci moom ñun li feeñ rek lañ mën a jàpp waaye lu nëbbu mënuma koo nekk di ko jéem a jàpp yàlla dafa xaar der yi comme ni ma xaaree bakkan yi ak xalal yi bëggul kenn kuy xotti deru nit ñi seen xorma ya nañ koy daw sayduna Usmaan ku dëgëroon la sayduna Ali sayduna ñëw gën a dëgër ñëpp far nag moom moom bu bàyyi woon ba guddi dafa daan topp mbedd yi comme ne moom la yàlla natt mu jiite jullit ñi muy jéem xam li xew dañu bari seen caay-caay ga guddi lañu koy def bu bëccëg jotee boo dajee ñoom foo ne malaaka lañ waaye bu guddi jotee ñoo gën a bon iblis xam ne ci nit ñi nit ñoo xam ne seen mbaax nga bëccëg rekk la te nit ñee tax waaye bu guddi jotee rek ñi wan la ne ne niñ meloon ci bëccëg bi du dëgg niñ mel nii nag ci guddi gi mooy dëgg Omar ibnul Xataab benn bis tabaarakallaahu dafa toog di di raju nit ñi rekk di raju nit ñi rekk ba benn bés mu jékki-jékki rekk tëb benn miir ne caax ca biir këru jàmbur ba mu ñëwee fekk waaja ma ngay xelli sàngara Omar ne ko yow noonu yàlla bi foogoon nga ne yàlla dana la suturaal ci lu bon lii nga ne ku nekk ci mooy yàlla bis dana jot yàlla xawi sa sutura lu tax ngay def lii mu ne ko su fekkee ne mooy naa yàlla wenn yoon ci fii ma nekk di xelli sàngara yow moom Omar di njiitu jullit yi mooy nga yàlla ñetti yoon dañ ko ñemewoon seen kilifa bu bu dëgg jotee rek ñu jox mu ne ko nu ma moyee yàlla mu ne ko yaa ngi nii li tax nga xam ne dañoo nekk fii di def lii dang ñoo raju fekk benn waaye ne koon heure sàngam bu jotee boo demee village sàngam foofa dañ fay jaay sàngara Omar xaar ba heure booba jot rek mu dégg bruit ba ca biir kër ga rek tëb miir ñëw fekk leen ñi xelli sàngara boroom kër ga ne ko su ma moyee yàlla ci xelli sàngara di ko jaay yow moom mooy nga yàlla ñetti yoon bi ci njëkk mooy dang ñoo raju boo ñu rajuwutoon xam li te yàlla tere nañu raju ne sa tajassasu mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko ñaareel bi mooy nga yàlla kër gi am na buntu lu tax ba ngay ñëw jaaroo ci buntu bi ngay tëb miir taal quran jàngaloon la jàngal ñu ne watul buyuta min abwaabiha foo ko teg te yaa ngi nii nag xat tasawarta mu ne ko ñetteel bi danga xëy rek tëb miir diisu wooñu te ñu ngi ci biir kër gi kon mooy nga yàlla mooy ñetteelu yoon bi te alquran a waxoon ne laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala te yaa ngi nii ñun ñoo moom kër gi nekk fi diisu wooñu nuyu wooñu foo ko teg Omar ibnu Xataab tàllal loxo ya ne ko jéggal ma yàlla maa ngi jéggalu yàlla di la jéggalu waa gi ne ko jéggal naa la Omar ñibbi ba leen keroog waxul leen dara moo tax gis nga boroom xam-xam booy xuloo waaye boo tegg fi borom xam-xam man ngaa wax wax ju bëri bu la tontoo rek nga am gàcce boo mooy tugut sax da nga mujj sax ne dama dama bëgg ngeen dem robbi ma ma dee ta fekk maanaam déegoo Omar xam ne wax na ko dëgg mu jeex gis nga ko Omar ibnul Xataab loolu moo doon jikkoom nekkutoon président buy toog ci palais bi rek ñi koy indil dossier yi muy signé te bëri na looy signé lu signé wut na lu lay lobi di indil te fekk dara wéru ca moo tax moo daan wàcc ci terrain bi di xool li xew lum ca mën a saafara saafara ko ca saasa lum ca mënta saafara seet nu muy def mën koo saafara noonu la yàlla bindee woon Seydunaa Omar njiit yépp war koo roy tabaarakallaahu ci mbaax gi nekkoon ci moom moo tax boo demee Saïd ibnu Mansour jëlee na ci Xasan mu ne Omar génn góor da koo ñëwal annahu qaala rajul li Omar inna fulaanan laa yasxu diw daal du wuri mukk day màndi rek xaaral ba waxtu sàngam jot boo demee da nga fekk ma nga teg kaasam ya di naan boole ko ku bëgg sax mu jaay la xamar wax ko ne ko xaar ma ba heure ba jot nga ànd ak man ñi dem fa ataahu xamar dikkal na ko fa qaala qad wadaa sharaabahu mu ne ko waaja ñëwal ko ne ko heure bi ma la waxoon jot na nañ dem ñëw fekk waajaa nga teg naan waayam ya ñi booy dem jàllar bi ku tabaarakallaahu diisu ma nga ma nga ber la war a naan ñu dugg Omar ne ko waay fekk na ba mu déggee buri loolu la gaaw denc sàngara sax Omar ne ko man de xet ak sàngara moo may xeñ ci yow wallahi inni la ajidu riixa sharabin yaa fulaanu anta mu ne ko xet ak sàngara may xeñ ci lii nga nekk ku ñor la te mën a jàng waaye ne ko yabna alxataab wa anta bi haasa an lam yanhaka llaahu an tatajassasa mu ne ko yow naka nga mën a waxee li yow Omar ibn Xattaab mi jiitu jullit ñi xanaa sa borom terewul la woon ngay raju nit ñi ci wala tajassasu Omar woon ko gannaaw ne ko jéggal maa ngi jéggalu yàlla jéggal ma yàlla tama dem mu jeex kon ab jullit dañ koo sant bu gisee lu gisuwut ci moromam jullitam mu suturaal ko lu dul mooy yàlla goo xam ne mën naa roogaat ci pénc mi di yàq population bi loolu kenn du ko noppeeale ku ko noppeeale sax seytaane nga loolu nag la Omar taxawoon di ko jéem a dindi ci pénc mi waaye lu dul loola suturaalal waa ji yàlla la ëpp sutura foofu te yonent bi nee na ku suturaal ab julit bu yowmal qiyaama yàlla suturaal la wa man satara musliman satara allahu fi dunya wal axira muslim moo ko solo mu bokk ci hadisi abi hurayra ya kon nañ ci bàyyi xel yonent bi dafa daan wax ne yaa machara man amana bi lisaanihi walam yoxlis imaana ila qalbihi wala tattabicu awraati almuslimin fa inna man ittabaca awraati almuslimin maanaam tattabaca allahu awratahu xataa yafdaxuhu walaw fii jëw fi baytihi tabaraan yi moo génne hadis boobu nabi nee na yéen ñi gëm ci seen làmmeñ te gëm gi yeggagut ci seen xol bu leen toppatoo awraay jullit ñi ku toppatoo awraay ñi di ko jéem a yàlla toppatoo sa awra ba gàcc yàlla doon te yaa ngi sa biir néeg bari na kuy bëgg a toroxal nit loo dégg ci moom bëgg koo siiwal ah far yow nag fa nga nekk far ba te waxtaane far fekk la kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax lislaam ji diine sutura la lislaam ji diine rafet njortu ci sa mbokk la lislaam ji diine jël sa muraay ak sutura mur ko sa moromam jullit la waaye du diine xawi suturaak loo xam ci nit ki ci lu bon rekk nga di ko wax te loolu baaxut moo taxoon imaam ahmad wax na ne haashim dafa ñoo solo bu bokk ci xadiisi ibrahima ibnu nasid alqawlaani mu jëlee ca kaabu ibnu alqama mu jëlee ca haysam moo bu ko defee mu jëlee ca dëjjil mi nga xam ne mu daan binal xuqubatu mu ne ñun de xam nañu ay dëkkandoor yu naan sàngara danaa woo ay policier ñëw jàpp leen waaye na ko bul def loola mukk demal nga xupp leen ak tawaar leen waaye boo leen weeree woo ay police ñun lañ cay fekk ak ñoo yem te loolu baaxut man satara awrata muminin fa ka annama staxyaa muudatan min qabriha nabi nee na képp ku suturaal ab julit dafa mel ni yow mii ku ñu jur muy dund ñu suul ko nga fexe ba sulli ko dekkil ko kon loolu nañ ci bàyyi xel xadis la bopp abu daawuda nasaa yi ñoo ko solo bakk bokk ci xadisu laysu la laysu bnu saada kon nañuy suturalante ku mat nekkut fii ku yàlla suturaal dong moo fi ne nañuy garde suñ làmmeñ yi ñoŋel ko ci deru jullit ñi làmmeñ xéewal ak yàlla la gu màgg bu ko tàggat mukk di ko jëmee ci mooy yàlla man a wax moo la moo la wutaleeg mala yi man a wax moo la wutaleeg bàyyi ma yi ku ci xiif ki nga nekk ak moo koy xam rek mbaa nga junji ko waaye yow mi boo xiifee man koo wax boo maree man koo wax boo feebaree man koo wax boo amee jafe-jafe man koo wax organe boobu yàlla jox la man man koo waxee dee ca wax lu baax kàddu mën naa yëkkati nit ba mu hegg aljana waaye kàddu mën naa këpp nit ba dugal ko biir safara kon nañ bàyyi xel kàddu gu ñuy dugal aljana te moytandiku kàddu gu ñuy dugal safara waxoon naa la koog ba yàlla di sadd kàddu gu rafet di ko niraleeg environnement environnement bu tedd mën naa créer mbooloo di kerlu ca keru environnement booba mel ni garab gu teey nañ cay kerloo ña ngay xencu xet gu neex ga muy jolli ña ngay lekk meññant ma waaye kàddu gu bon mën naa créer environnement bu bon ci garab gu amul ker amul meññent amul xob amul xob buñ mën a kerloo amul meññent muñ mën a lekkee amul xet googa garab kenn du ca toog bu ko yàlla na too mu xamee ay dëgg yu lay jam na nga gën koo bañati kon kàddu gu bon dafay tasaare pénc ci baaxut kàddu moo gën a diis ca baskil ab yàlla ba juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf yëpp ñu ko tegoon ci benn baskil kàddu gu baax gën koo diis moo taxoon Moussa ne yow sama borom xamal ma kàddu gu ma lay tuddee di la ca ñaanee mu ne ko wax laa ilaaha illallaah rek Moussa ne ko yow yàlla kàddu gi ñëpp a koy wax dama bëgg xam loo ma jagleel mu ne ko xanaa xamoo ne laa ilaaha illallaah yow Moussa bu jëloon juróom-ñaari asamaan yi ak juróom-ñaari suuf yi ñu def ko ci benn baskil baatab laa ilaaha illaa nekk ci benn baskil daane leen kon ndeke baatab laa ilaaha illaa di kàddu gu dëggu moo gën a diis ci baskil bi ñuy peesee ëllëg ci yowmal qiyaama ci poids ñu fay teg. kàddu gu rafet moo mën a dekkil ku dee kàddu gu baax yàlla mu ngi koy niraleeg maanaam produit boo xam ne mën naa dekkil ku dee moo tax mu ne afa man kaana mayitan fa ahyaynaahu wa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi naa nnaasi kaman masaluhu fi zulumaati laysa bi xaarijin minha anam nga koy fekk aaya cent vingt deux kon ab jullit dañ koo digal mu sàmm kàddoom wattu ko ci wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula digal nañ ko mu wattu kàddoom ci wala qad xalaqana al insana wa naclamu ma tuwasisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi id yatalaqa almutalaqiyaani an ilyamini wa an alshimali qaid maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid xaaf nga koy fekk aaya 16 ba ci aaya 18 kon nañ bàyyi loolu bu baax te bàyyi ci xel suñu cër yi di ay organe benn bu ca ne yàlla dafa am lu ñu ko sant boo jëlee sa xol bi yàlla da ko sant nay xalaat lu baax tafakkaru fii xalqilaay wala tafakkaru fii zaatihi tey fas lu baax sa bët bi nay xool lu baax sa nopp yi nay déglu lu baax sa tànk yi togg nañ ko muy dox jëm ci lu baax ku ko def xeres nga yàlla xeres yàlla piir mooy nga wattu bopp ba ak lam làq bopp ba nag moo làq bët ya ak nopp ya ak làmmiñ wa moo tax mooy al istixyaawu min allaahi an taxfasa rësa wa ma awa waaye dëgg dëgg xeres yàlla mooy nga wattu biir ak lim làq wa taxfasal batna wa ma xawa su ko defee nag biir bii moo làq xol bi làqaale xawre ya làqaale tànk ya kon organe yëpp ñaara ko mujj séddoo bopp ba ak tànk ya wala bopp ba ak biir ba mu jeex tàkk kon nañuy bàyyi xel ci loolu buñ ko defee rek xeres nañ yàlla tey fàttaliku dee bu baax a baax a baax xam naa bu subaa ci waxtu yi boo ma toppee nag ma wax ak yow dara ci jëw ni mu bëree suñ penc mi ni mën a yàqee société bi ni mën a yàqee ak mbokk ni mu mën a yàqee ak population ni mu mën a yàqee ak àndoo waaye dinaa la wax tamit jëw yi lislaam may nga mën koo def doo ci am benn bàkkaar waaye jëw yi lislaam xaraamal nga xam ne boo ko defee mën na laa yóbbu safara xam naa loolu suba ci waxtu yi mooy nekk suñ bopp darsu ci kartanal yàlla ak sañ-sañam yàlla na yàlla yóbbuñu ca wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu